Salam alaikum, euh, internet yi yéen ñi faral di sétane site bu Dakar TV tay nak ñu ngi Liberté 6 euh, extension ñu ñëw fi ci euh, manifestation muy le directeur général Dakar Dem que muy monsieur Moussa Diop tay muy baptisé domam tudde ko Assirou muy événement bo comme koy sen euh, site bu mag bi lépp loo xamante ni événement la dina ko jël indil ko ngir bahelenko leen ko mais grandam tey ñu toogal une grande dame ki ñu c'est la première euh, femme de monsieur Moussa Diop ñu koy wax euh, ajaratu xam naa dañ koy bàyyi moom sax mu wax turam su ko defee présenté wu balaa ñu dugg ci waxtaan bi soxna si ñu lay siyaar. allo ngi nuyu di di kon am contentement si bisu tay di bisu maître Moussa Diop ak soxna tal donc ñuy tuddu sen dom bu gor bi di ñaan yalla mu juddu ta am nday ak baay jërëjëf soxna si eh, yow lañ wax ni yaay soxna Moussa su njëkk ngay ngay awam manam sa diggante ak Moussa bi ngeen yag na lolou tay ji nak ba yalla dogal nga fekke lu bare bare ba soxnam si mu mujj takk nii muy 3e nyu tay ji ñuy ngenté sen dom ji yan kaddu nga am yo xamni ni mën ko koo sànni ci lool ak sa ak Moussa. waaw sama digentek Moussa mu wax ci dina yomb ci man parce que Moussa nit ku bax la jëkër ju mat jëkër la te ku nangu njabot la man goor man so bëggee njabot te lo am sa kër nga indi. Lenen lu ci dess rek bénéfice la lu ñew rek bénéfice lay doon sha allah nit ku baax la bu yërëm jigen bu ñëmi njabot bëgg ay mbokam ñëmi dimbali doomu adama lool de la xam ci mom wax dëgg yàlla moto bisam bi ñëpp ko ko yéene ñëpp contane nañu sha allah laaw la ciat waaw jërëjëf gis nañ euh, ki nga xam moy bi nga and ak mom bobu directeur général mais bi ñu ko defee directeur général Dakar Dakar Dem Dikk ak fii euh, société bi tolloon depuis mu nekkoon au temps ab euh, président ab Diouf au temps socialiste bi mu ñëwee gis nañ fi mu jëlee société bi ak fi mu ko indi loolu yi lan nga ci mën a dolli ci li nga xam ne président Macky Sall dénk na ko am ko ci am ci moom qualité moom Moussa Diop. waaw Moussa moom euh, ku ko dégg wala nga xam ko xam ne liggéeykat la. parce que mom Paris la ma la nekkon ñun ñi ñepp Paris lañ nekkon bi ma ak mom ba légui yag na trop machallah yal na ati gëna bari waye même fofu liggéey rek lañ ko xamal liggéey rek liggéey bi muy def Dakar dem dik daf ko ci mom dañ ko ci fekk dan nañ tedd ba guddi sax reeram dama ka daan defar duggal ci micro-onde bi tellement que ne heure bi day guddi ba nga xamne ne lépp ci joobam la si la doon nekk ci liggéeyam. nekk ci diggante aéroport yi jël dossier yi jóge fa ma nga baro parce que ñu France ñëpp xam nañ ni muy doxe ñoom même guddi sax euh, dañuy dañuy dañuy àtte di plaider donc euh, man dama daan tëdd su ubbi reer bu suur tëdd nelaw mu nekk ku jàmbaar ju am jom nag ku am jom nag ku nangoo liggéey bëgg liggéeyam bii doorewul Sénégal. man mii di jabaram ñun xam nañ ci dara wax dëgg yàlla mu ñëw nag dakaar dem dikk euh, fekk fa dakaar dem dikk di dakaar dem dikk mu ñëw def fa liggéeyam bu rafet di liggéey ba léegi man dama koy wax sax ne yow amoo vie de famille parce que euh, balaa ngay wàcc day guddi heure bu muy wàcc rek dina fekk vingt vingt deux heures dina jot wala vingt trois heures des fois damay ñëw sa fekk ko muy mu ne ma gis nga ci liggéey rek la nekk de ma ngi ni di liggéey rek mu nekk bëgg liggéeyam bëgg liggéey am jom te lu mu nekk lu ci nekk rek da ci bëgg am ndam mom lu mu dul am ndam di am échec rek du ci dugg waaw loolu de la xam ci mom wax dëgg yalla waaw ak allo Dakar nak fi ci euh, SAC Liberté 6 extension ki nak moy première euh, femme Moussa Diop muy ajaratu Ndeye Anta Allo Dakar ñu ngi lay sant di la gërëm lan ngay dolli ci loolu di ko tàggatoo nag ak Allo Dakar. waaw maa ngi leen di gërëm yéen Allo Dakar tele bi xew si jamono yéen daal ca kaw ca kanam rek jamono yi moom yéen xew lépp yëpp ñëpp a ngi leen di wër daal yéen daal fi mu nekk nii xamal leen ne daal yéen yéen ay number one yéen xew ci jamono te jamono nag moom boo ci nekkee te xew ci moom dañ lay ñaanal rek ngeen jëm ca kanam a kanam a kanam te naa ne télé bii. Allo Dakar day jëm ca kanam a kanam